ci li ñuy liggéey ñun man li may waajal dama la bëgg wax ni suñu vision dañ koy dañ koy segg ñeenti pàcc bi ci njëkk te ëpp solo mooy les ressources gis nga gouverner li ci gën a yomb mooy defar ay infrastructure ak euh, tabax ay yoon ak nangam nangam nit suñu la yow da nga yor kër boo ñëwee sa biir kër ne dama bëgg a def dara li ngay njëkk a posé wu koy comme question mooy ban ressource laa am lan laa yor ci xaalis pour mun koo def ak su dee yoruma xaalis fan laay jëlee ji xaalis parce que loolu mooy laytaayu yépp dégg naa ñi ñi naan Sonko parle beaucoup de fiscalité may leen da ngeen xamagul lu xew fiscalité mooy lépp nga teg ci ressource naturelle teg ci monnaie doog ci teg dette les ressources te loolu mooy li ñu njëkk a Sénégal débat sur les ressources amul Sénégal donc les ressources d'abord parce que su ressource doyee rek la ca des yëpp day yomb te Sénégal am na capacité ressource yoo xam ne mais yàlla may nañu loo xam ne macha allah ma jël les quatre point yi ma wax noonu rapidement tënk ko premièrement fiscalité man dama bokk ci ñu gëm ni atteindre guñu le quart de nos capacités monsieur le ministre vraiment félicitations budget bi yokk recette fiscale Mais leen bu leen bu leen xamu leen sax lu xew parce que li ñu bàyyi ci ay niche fiscale muy li nga xam ne ci code bi la nekk déjà rapport dépenses fiscales, yi wane na ni lu ëpp 500 milliards la ñuy perte ci année ci ay exonération yoo xam ne baaxut lañ ca doon séentu amuñu ko rien bi mooy li wax les mauvaises pratiques te am na yu ma ci junj léegi corruption euh, euh, amnistie fiscale ak yu ñak fay yooyu ñuy def nga xamne lu muy jural Sénégal kenn xamul lu mu toll ci musiba ñettel bi moy jox administration yi moyen ñu liggéey te ñu génne leen ci politique tay impôt domaine plus de 100 milliards de gap la ñu def sur 2000 2003 directeur général baa Medina di di di di di politique directeur des domaines euh, ma nga ma nga ma Dans le di politique talatuñu dara politique ak réélection de de Macky créer des conditions te que day concerner administration yépp ba nga xamné par exemple appel à candidature conditions yi yu ñu motiver les agents pour ñu liguer. D'après, les niches fiscales yi nga xamné ne dañ fa demul jëlal lu melni l'immobilier on a un parc de plus de 200 000 foyers immobiliers au Sénégal il y en a que 6 000 qui sont fiscalisés donc suñu capacité kenn xamul nu mu toll te ñu ngi ko fi bay dem ci dernier mayon bi parce que man loolu laaj considéré mooy dernier maillon lebi leb mooy dernier maillon ñaareel bi bi am solo mooy suñu ressource naturelle li Macky Sall def moo nguuram di jaay suñu ressource naturelle ci caaxaan ci Mali foro tey am nañu capacité boo xam suñu ressource naturelle moo tax ma ne man de suma yàlla dénkoon réew mi contrat yi fi nekk yépp ci pétrole ci or ci zircon dañ koy renégocier ku bëgg di nga renégocier ku bëggul di nga renégocier parce que askanu Sénégal a gën a soxla loolu ko ñooñu te lañ fa mën a am am na solo soo xam ne boo ko booleeg li ñuy am ci ressource naturelle tey suñu ñu nee budget 3000 et quelques milliards dans 3 ans 4 ans 5 ans mun nga ne budget 7000 milliards man maa la ko wax lii ma wax nii ñetteel bi mooy politique monétaire te loolu day supposé ñu génn ci franc CFA bi parce que mu ngi ñuy rey.

tubaab bi xam nañ ne am nañu pétrole am nañu gaz am nañu or am nañu dinañ la lebal di la dugal ngay yokk sa service de la dette tey weer wu ne mun naa ne 30 pour cent suñuy recette dañ koy fayee bor pour dem lebat suul bukki sulli bukki ci loo xam ne amoon nañu capacité fii daat koy joxe maye ko boo dajalee loolu nag ba pare ngay doog a dugg ci vision économique li manqué fii premier ministre dafa ñëw assemblée déclaration de politique générale me posé ko une question tontou Nous ñu tout tuuti Amadou Ba ministre des finances me posé ko question mais tontou ma moi. question bi mooy lan ma ko modèle économique parce que on ne réinvente pas la roue Il y a des modèles De mon a xam moi c'est un modèle économique Mon me eh bien le président Macky Sall dégage la vision et nous on suit ma ça c'est pas un modèle économique Assalamu alaikum Sénégal suñu politique yàgg na am ay nit yu baax amoon nañ fi ku mel ni Cheikh Anta Diop amoon nañ fi ku mel ni Maodo waaye ñoom ñëpp malheureusement sénégalais yi waruñu leen jàppale leen en tout cas jàppale leen jàppalewuñ leen nu mu waree ngir ñu mun a jël pouvoir bi jëmale suñu réew kanam tey am nañ koo xamante muy Ousmane Sonko gis nañu lu ci moom lu ñu gisoon ti lu suñu mag yu baax yooyu tey jii buñ ko bàyyi moom dong Sénégal mi ngi ci sële yoon waruñu bàyyi Ousmane Sonko partem bi Pastef naan kii ku baax la ku baax la te duñu def dara lu ñu war a njëkk def moom mooy dimbali ko ci finance ba ndaxte Pastef parti boo xamante ne la parti buy soog a juddu la te comme parti yu soog a juddu yépp lu mu njëkk problème yu muy njëkk am moom mooy dem dugguti réew mi dugguti campagne yi ñëpp xam lan la xalaat ñëpp xam seen leader loolu tey moo manqué Pastef ku déglu Ousmane Sonko xam ni nit bu jub la waaye nit bu jub boobu su fekkee ni ñu nekk ci biir Sénégal xamuñu ko wala ñu nekk fële ci diaspora bi xamuñu ko nit ki lu mu baax baax baax baax ah kenn du ko voteel soo leen bëggee nit yi voteel Ousmane Sonko lu ñu leen ñaan mooy ngeen jàppale ko finance yi moom moo tax Pastef Sénégal ak Pastef diaspora dem lii def lii ñu naan bokk naa bokk naa benn benn plateforme la boo xamante ni soo si duggee di nga mun jël sa xaalis jàppale Ousmane sonk plateforme boobu ñu ngi koy def fii ci suuf yéen a ngi koy gis soo si cliquer benn lit ci la soo si cliquer mun nga jël sa carte bleue jàppale ko ak noo mu ne su fekkee ne bëgguloo joxe sa carte bleue ñu ngi lay jox ay numéro téléphone yi tamit ci suuf yaa ngi koy gis numéro téléphone yi koo si woo di nga xool di nga am sa référent pays am nga ki ngay woo soo nekkee France am nga ki ngay woo soo nekkee États-Unis am nga koy woo ko soo nekkee Canada am na koy woo soo nekkee Espagne et cetera woo leen jàppale leen Ousmane Sonko ti finance yi jàppale leen Pastef ti finance yi Ousmane Sonko mun dugg ci biir réew mi def benn tournée nationale dugg ci village yëpp waxtaan ak ñoom def benn tournée internationale dugg ti àdduna bi yëpp waxtaan ak ñoom Sénégal ñu ngi ci sëla yoon bu leen bàyyi Ousmane sonk demee nii ñu bàyyi ko mu mel ni Cheikh Anta Diop mag yu baax yi yàgg nañ fi baax waaye jàppale ñu leen tey suñu réew gis ngeen nu mu mel suñu amee ku mel nii nag nañ ko jàppale rek man dey bokk naa yéen nag.